asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xanaa kàddu yi ndigal rek sëñ Mamadou Bassir moo ma jox ndigalal jot li ay kàddu kon kàddu yi dama koy def kàddu yi jaayante maanaam walajtu man fi imtidaahi muhammadan mooy engage boo engagé ne suñ dund yëpp jëbal nañ ko sëñ Tuubaa ndigal rek lañuy ñuy te ndigal su ñëwee day neex lool ba mel ni moo taxoon ñu bind ñu suñu amul ndigal nag dañu mel ni jën joo xam ne da nga koo génnee ci ndox dootul mën a noyyi waaye ndigal rek moo ñu dundal yow nag sa liggéey bii nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal seexul xaddim ànd kook Cheikh Mamadou Muntaxa yow fonctionnaire u yoonu murit nga yow murit yépp la war a fay te mënuñu ko kon nañ la ñaanal ndax kilifa nga mën a amuk bëgg mën a amuk jublu waaye nag jaay nga lépp jënde ko jublug sëriñ bi ak bëggug sëriñ bi sa mbokki bopp yi itam nii ñuy doxe man de li ma ci gis mooy diggante lansaar ak muhajirin ñun ñooy lansaar yi yéen ñii yéenee muhajirin yéene bokki sëriñ bi ba faw yéenee ne sunu kanam waaye ba faw nooy nekk seen ginnaaw lii daal laa doon jotlee kàddu di wax ne liggéey bii nga xam ne mooy njàngum alxuraan bi tey jii bi ñu xëyee ci benn fan bi ci suba gi rek jàngagum nañ juróom fukki kaamil ak benn boole kooku di yëkkati xaside yi ci suba ba léegi waaye dinañ ko àggali mu doon juróom-ñaar fukki kaamil ci bisub tey su ko defee euh, ñu boole ko xaside yi te du jote dara ak li nekk Cheikh Mamadou Mountakha Hizbut Tarqiyyah euh, juróom fukki kuréel ak benn am na fi kon liggéey bi woyof na sax ci noonu bu ngeen ci dolli woon yeneen nit dinañ ko ci dolli kon ni li ngeen ñu sant diisul ndax mooy mooy mooy mooy sunu moo nuy dundal di ziare sëñ sëñ sëñ xabbaan mi nga xam ne ba ñu dikkee ci moom ñun yëg nañu ne daf ñoo def ay wéttal def gi ñu def wéttal nag loolu it dafa neex loolu ci sunu xol ndax ñun ñun danoo gàddaay wan nañ ginnaaw lépp lépp lépp kon ñun bu ñu ñëwee ci njabootu sëñ Tuubaa ñu doon suñuy lépp daf ñuy fàttali rek li sëñ Tuubaa wax ne waltu basir bi yal yataama dawaaman ansihim bi abahum kullahin ñun yéen a tax jërimuñu kon jërëjëf sëñ xabaan yàlla na la seexul xaddim doollee gën a dëgëral ci sa liggéey bu màgg bii nga xam ne mooy alquranul karim di ziare sa sa sa seen seen Cheikh Baara euh, moom sëñ Abdoulahat mu sëñ Baara euh, mi ñu ngi ñëw mi ngi ñëw léegi nii nun mosuñu réeroo ci dara fu fu ñu toll mu ngi fay tollook noonu te bokk tamit ci njabootu sëñ Tuubaa yi nga xam ne sëñ bi da ko doyloo ci lépp ba ci liggéey bu màgg bi nga xam ne da koy seq kilifa diine yi lu ci bare ñun daf ñuy boole moom ñu di ko ànd loolu sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir mii xam nga ci dara ndax lépp yéen a ko ànd kon daal awma genn kàddu gudul nañu yeesalaat suñu jaayante te xam ne liggéey bi ne suñu kanam moom moo am solo li nu weesu buñ ko sax gesu ndax mbir bu ab jëf jëf bu ko yàlla nangoo da koy fàtte kon defalaguñ Serigne Touba lenn waaye nanu dimbali rek téye mu suñu tawféex gii mu sax ci di ko liggéeyal jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah kon na ñëpp teew ñu tàllal nangu ñaan